Macky Sall daal gën naa lëndëmalaat askan wi jamono ji bokk na ci li ko waral moom njiitu réew mi ñuy xaar ci bis bi nga xamante ne war na ko fësal ngir ñu amal ci élection bi ba léegi amul dara lu mu wax lu leer ndax nee na prochainement ci ay fan wala jamono daal yi ñu dëgmal muy prochainement noonu tamit la ko Les Échos xamle date bi ak processus amnistie bi tamit lu koy jiitu bokk na ci ay waxtaan yu nga xamante ne nam na ko sekk ak acteur yi ba ci sax waay société civile taxawaay bi moo tax le témoin boppam dafa mel ni ku ñu yóbbuwaat ci kaland alpulaar ndax mu ngi lal ay pexe ba tey ngir daal di yokk li nga xamante ne mooy mandat bi mbébétu yokk app bi moo tax li quotidien jàpp ni Macky Sall jamono ji léttagul waaye tamit firéegul askan wi Macky Sall ci brouillard maanaam dara leeragul noone la ko le quotidien le quotidien daal di xamle yi tamit la tribune moom lu muy xamle mooy boo moytul dal ci dooraat processus électoral bi yëpp la ñu jëm te loolee yéene kaay des njiitu réew mi war naa àddu ci ngoon si bis bi le jour mel ni ku koy dëggal ne njiitu réew nga xamante ne ñu ngi koy xaar ci ab ndaje ak taskatu xibaar yi ni ki tey ji war naa wax ci li ñu duppee meilleur délai yi yéenekaay bi di sampab laaj ndaxam Macky Sall ci boppam jamono ji nekkul ci mbëbët boole Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay ndax li nga xamante ne sàkku na ko muy ñu fexe ba jëmal li nga xamante ne mooy jéggalaate bi waaye tamit réconciliation nationale jamono ji ñuy wax réconciliation nationale nag enquête Sénégal moom ma ngay yéegati bokk na ci firnde yi mu fësal li ñu teg loxo kenn ci responsable Pastef yi di maître Ngagne Demba Touré Ngagne Demba démb la ko dik jëli ca këram libération dañu xamal ni kon lu jëm ci mandat d'arrêt international bi nga xamante ne weeru septembre bi wees lañ ko lancé woon moom la ñu daal di jëfee ki jiite ndaw Pastef yi nag tey jii lay mujj jano ak ki nga xamante ne mooy atekat bi laata atekat bi di ci addu Sud Quotidien moom mu ñuy xamal ni ñu teg loxo maître Ngagne Demba Touré ba ñuy tembe ngir fas yéene defante le quotidien yéene kaay di ko dëggal ne kon greffier yi moom dañoo mer ba futt jamono ji mer bi yemul rek ci greffier yi ndax yor yor bi mu ngi ñuy xamal ni tamit ndaw patriote taxaw nañu tembe ngir xeex ba ñu bàyyi seen naataango gi di Ngagne Demba Touré lu mooy Ngagne Demba Touré moomee opposition bi yëpp daanaka jamono ji nekkuñu ci jàmm Walf Quotidien di ñu nettali li nguur gi nekkee jamono ji di tas ay caravane candidat yu di ko méngale ni ab pexe muy stratégie de la bi nga xamante nguur gi jamono ji ko teg ci opposition bi li Macky Sall na mati teg moom jëmul kër yéenekaay bi di critique na ni ci tas conseil constitutionnel la njiitu réew moo tax muy samp laaj ndaxam Macky Sall ci boppam amul jinne ju ko topp moom Macky Sall di wéy di topp opposition bi ci ab dialogue waaye bu yóbboo mu xam ne du ñëpp ko fas yéene wuy ji Vox Populi tey lum ñu xamal mooy coalition Diomaye président dàkkal nañu bépp waxtaan ak nguur gi lu ñuy sàkku kay jamono ji mooy njiitu fexe ba dëppoo ak calendrier bi ci boppam moom Macky Sall ndaxam dina dëppoo ak calendrier bi li am ba am l'observateur jàpp na ni njiitu réew mi ci boppam jamono ji mu ngi ci ay pexe yéenekaay bi fësal na yoon yi nga xamante ne njiitu réew mi mën na fa jaar ngir daal di ciy génn te lépp xëy na mën naa leer ni ki tey ji ci ab ndaje ak taskatu xibaar yi étudiants yu ndakaaru daje ci seen biir ne tay nañu ci xaar gi réew mi quotidien di ñu xamal ni ab plan d'action la ñu fas yéene nas ngir fexe ba yi ci seen wàllu bopp ñu daal di ubbi université bu ndakaaru ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ci ab tiis ne nekk libération dikk na ci faatub kenn ci ñoom Célestin Senghor mi nga xamante ne ay gaañu-gaañu la jëlee woon ci manifestation yu wees ngir ŋàññi report présidentiel bi loolu tax na ba ay naataangoom jamono ji mer ba fut la ñu def te nee ñu nag liñ leen di boom faaw mu dàkk wàllu tàggat yaram ak réew mi sport mi di kat ci Mbaye Niang international sénégalais bi nga xamante ne dafa mucc ci ab l'accident bu métti bi nga xamante ne dund na ko ni ki barki démb ca Italie ca Europa League Ismaïla koor yéenekaay moo ni xam xamle ndax war nañoo fexe ba wëlbati ñii di waa Shakhtar Donetsk gannaaw bañ leen daane ci jongante aller barrage Europa League